أعوذ بالله <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلامان على من لا نبي بعده mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu sell di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di euh, nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatul aam li taifati al muridiya di ko ñaanal sun borom yokk aw fanam te may ko ak wér ba li mu yéene liggéeyal ko Cheikhul Xaddiim moo àggale ko ci sagoom ak mboolem waa kër Cheikhul Xadim gi yëpp di ziyaare yitam mboolem eh, waa tasawuf bi yëpp ñoo ngi leen di ziyaare eh, di leen ñaanal itam ñaan googu nga xamee ni moom lañ tudd léegi Cheikh Mouhamadul Muntaqa eh, mbokk yi groupe communication Xuddaamul Xadim mooy yëkkati ay kàddu ngir leeral xew-xew bi nga xamee ni amoon na fii ci Touba bu yàggul mm, ci benn vidéo boo xamee ni sëriñ Hamzatu Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad génn na ca di feeñal naqaram ak di denose ay wax yoo xamee ni mi ngi jóge ci kuréelu alwahabiya ñu mën ca sitiyee euh, Xalil ca la bokk waaye Ahmadu itam ca la bokk ak ña ñu àndal pas-pas ak xalaat ñuy jël ay kàddu yu safaano ay kàddu yu ñàkk ay teggin jëmale ko ci euh, mutasawifuuna yi waaye itam jëmale ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha ak ci bisu màggalam gi nga xam ne da ko woote ngir sant boroomam mbokk yi ci foofu laa leen di leerale lenn ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha euh, Cheikh Ahmadou Bamba ñëw ci jamono joo xamee ni ju lëndëm la jamono joo xamee ni lislaam gàddaay na waaye sunna itam ràpp na comme ni nga xamee ni noonu la ko waxe daan ni kaadat tura ka rasmi daarin qad afa fii da zamani li mudiyi lxunafa kon wa sunnatul xarra xafrun muxishun maa fiihi min haadi wala min muhtad noonu la sëriñ bi ñëwee fekke diine ji mu jël léppam ak pësteefam jóg eh, ngir dundal li nga xamee ni mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ci jaayante ak rasulullahi sallallahu alayhi wa muy léppam ba la mu wax rëy na lool ak jaayanteem mu leer lool wasilati wa matlabi wa munyati wa jannati wa junnati wa buryati sayiduna muhammadun afdalu man mada wa man yaati wa man fida zaman noonu la ngoye ci rasulullahi sallallahu alayhi jaayante ak moom bay leeral itam ne kooku de mooy ki nga xamee ni fu jëm rek falaa jëm waaye lu wan ginnaaw wan naa ko ginnaaw leeral ko ci nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu abahu leeral yitam ne euh, lépp loo xamee ni andi na ko maa nga foofu ci diina jooju ci laa nekk man cheikhul xadim diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al itam mu ci alquranul karim bi nga xamee ni euh, mooy léppam mooy wéttalam am na fu mu ko waxe woon naan ni jaawartu rabbi al muin waaye mu jël alquran ngoy ca téye ca muy léppam ak xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dahara lii anna ictisaaman bilkitab wa bi xadiisi almustafa huwa alsawaab bay wax itam ne bihi zaala gammi xiina amsaktuhu huda za uhdi bihi nafsi wa uhdi bihi saxba alquran boobu la jël muy référence am muy tegtaloom waaye itam di ca wommat ñëpp mbaa képp koo xamee ni ànd naag moom cheikhul xadim alxuraan jooju mu jël ko muy wéttalam waaye muy tegtalam nga xamee ni amut lenn loo xamee ni jël na ko teg ko ci ci kaw alxuraan moom la doon jaamoo yàlla saa su nekk mi ngi ak moom manhaj boobu yi nag ak noon yi mu ne dann rasulullahi ak noonu mu ak ni mu ngoyee ci alquranul karim waaye lépp itam mu teg ko ci yoon wi nga xamee ni mooy yoonu assawaadul azam mooy euh, euh, jëmmi aqida bi mu yoroon mooy aqida bi nga xamee ni mi ko jëlee ci al ashaira te al ashaira wal maturidiya ñoom lañ gënoon a xam ci ahlu sunna wal jamaa foofu la teg tànkam waaye itam al imaamu malik radiallahu anhu itam sëriñ tuuba suubu itam ci am njàngalem ci wàllu fiq waaye al imaamu al junaydi yi bi ànd moom ci wàllu pëstéef te mooy wàllu tasawuf moo tax mu ni banaytu taati fi l ittibaai bi dikri wal jël aw yoonam akuk jaamu yàllaam waaye teg ko ci topp li nga xamee ni mooy alquranul karim waaye topp li nga xamee ni mooy sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam al ijma ànd ko ñëpp cheikhul xadim musta jàdd lu toll ne tarfatul ayni ci sunna wala euh, lii nga xamee ni mooy alquranul karim lu toll ni euh, fepp suuf ci looloo tax moom Serigne Touba leeral na position ci benn bataaxal boo xamee ni bind na ko ma liit ko ci arab soo koy firi ci wolof mu ni bismillahi irrahmani irrahim ila kulli man lam yaclam bi amri kaatibi hadihi alxuruf salaamun laa'iqun bih amma bacdu fa inna kaatiba hadihi alxuruf lam yazlim illaha tabaraka wa taala wa lam yazlim rasulahu sallallahu alayhi wa sallam walam yuwajjih ila ahadin bi fadlillahi tabaraka wa taala wa bi jaahi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam baatilan munsaqal fal yowma yuridu an yunabbiha kulla man lam yaclam bi amrihi tanbihan la yakunu bacdahu shak ah maasa kaana yunabbih allahu tabaraka wa taala rabbi wa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyi wa rasuli wa wasilati ila allahi tabaraka wa taala walquranu alkarim dalili wa hudaay walislaamu diini walkaabatu xiblati wallahu ala ma naqul wakil mbokk yi ab bataaxal la sëriñ bi euh, wax jëme ko ci li nga xamee ni euh, mooy alquran waaye mooy sunna mooy yoon wi nga xamee ni asawaadul azam maanaam ñi nga xamee ni ñooy ñu sell ñi ñu baax ñu fan jëmoon rek foofu la Cheikh Ahmadou Bamba jaar mu bind ab bataaxal daan ne maa ngi koy adressé ci képp koo xamee ni xamul mbirum euh, kii di bind leetar yi gannaaw ba mu nuyoo ba noppi nag mu ni ki bind leetar bii na ngeen yëg ni mustatoñ yàlla waaye mustatoñ yonente bi waaye itam mustatoñ moroomam du tey du suba euh, tey jii nag ngi leeral ni daa bëgg yee képp koo xamee ni xamul ay mbiram ak yeete goo xamee ni ak sikk sàkka du nekk ca gannaawam yeete googu mooy lan ma ngay leeral ni yàlla rek yàlla kese yàlla mu barkeel te kawe mi mooy boroomam waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ab yonenteem te mooy ndawam te mooy jokkuwaayam jëm ci yàlla ah waaye alquranul karim itam mooy tegtaloom mooy ak njubam waaye lislaam itam mooy diineem alkaabatu kaaba gi itam mooy xiblaam te li mu wax itam te lii ma wax wallahu ala ma naqul wakiil ñi ngi ko wax itam ànd ak dëgg gu leer naññ mbokk yi cheikhul xadim feeñal na position cheikhul xadim leeral na li muy leeral ba dara gënu ko eh, leer waaye jëmmi loolu itam mu ñëwoon am lu mu ko doon jëmmal fan la ko doon jëmmal mi ngi ko doon jëmmal itam ci ab dëkk boo xamee ni sanc na ko muy euh, Tuubaa comme ni nga xamee ni ci noonu lañu ñu ko jàngale moom Cheikh Ahmad Bamba Xadimul Mustafa ndax mbir yi bu fekkee da nga koy def ak yoon woo fàkk fa séene faa faw itam nga jëmmal ko ci barab boo xamee ni foofu ngay jàngale walla foofu ngay defee li ngay defee moo tax mu dal di wax moom Cheikhul Xadim daal ni allahumma innaka qutta zimaami ila al ardi allati ixtartaha lii wa banaytu fiha daarayni li abudaka fihima bil imaani wal islaami wal ixsaani di leeral ni jëmmi sun boroom moo jàpp ci ak nosom daa koy wommat jëme ko ci suuf soo xamee ni yàlla moo ko ko tànnal mu daal fay tabax ñaari kër ah, ngir jaamu ko yàlla ah, kër googee nag di daaru salaam ak Touba noonu la ko tudde ah, ngir barkeelu ci ñaari tur yooyu di ñaan yàlla itam mu defal ko ci barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa mu nekk ñaari dëkk yoo xam yi woom lañ waaye ñaari dëkk yu mucc sabab bi nga xamee ni itam eh, eh, ci Touba ñëw na Touba dikkul Touba ngir ak cosaan ay maamam ñoo ko moomoon wala ñëwul Touba ngir Euh, dañ koo daggal ay tool ngir mu fi bay walla itam ngir mu doon topp am ñaxre ngir sàmm déedéet waaye Touba da ko tabax ngir jaamu ci yàlla waaye ngir kennal yàlla xam ne yàlla rek kay yàlla euh, ci noonu yitam bi mu tabaxee Touba ci la daal di leeral itam njàngale mi nga xamee ni moom la bëgg fii ci Touba ñu taxaw ko fi ak doxinam doctrine bi nga xamee ni moom la soxla euh, ab leetar yi de ab leetar li ko def di wax ak ñëpp daan gannaaw ba mu nuyoo sant yàlla waaye julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan gannaaw loolu maa ngi digal képp koo xamee ni aju na ci man ngir yàlla mu jàng li nga xamee ni mooy pas-pas yi jàng tawxiid waaye jàng itam attey laab ak julli ak koor ak yi ni demee ah ci lépp loo xamee ni war na ci mukallaf waaye loolu nag bu ñu ko dee jàng nag man Cheikhul Xadim maa leen warlul ay téere ay taarif yoo xamee ni yooyu yëpp da cay nekk bu ko defee ngeen koy jàng ngir jëmmi yàlla kon sëriñ bi wane na aw yoonam ah, ci fi nga xamee ni fa la jëm ak taxawaayam waaye itam dem na fu kenn nekkul muy dëkku boppam mu sanc ko waaye itam tëral programme am bi nga xamee ni moom la bëgg ñu def ko ah, fii ci Touba ci wàllu njàng mi looloo tax ci vidéo boobu sëriñ Hamza di ca wax ba toll ci ni euh, euh, metti na nag ndax lii lépp bu fekkee danga koo sanc bu fekkee danga koo def bàyyi itam ay nit ñuy ñëw loolu sëriñ bi dafa yaatu ab dënn euh, day woote diine ju mat sëkk joo xamee ni ñépp la cumulé ñépp ci xaj ba tax na ñu xajoo ñépp biir xajoo boobu yi nag tax na ba am benn ci kuréelu wahabiya dëkk fii ci Touba yaatu fi lool amuñu benn jafe-jafe ak ñoom ngir Cheikhul Khadim kat ñun dañoo jàngal ni képp koo xamee ni gis ngeen ko aw làmmiñam baa ngeen dégg ko aw làmmiñam muy wax laa ilaha illallah kooku bu leen ko noonoo na ngeen ko jàpp muy seen mbokk looloo tax itam Touba yaatu lool yaatub dënn Cheikh Mouhamadul Muntaqa jàpp ñépp xajal ñépp yaatal ñépp ba kenn ku ne mën a dëkk ci dëkk bi waaye mbokk yi dëkk cib dëkk bokkoog nit pas-pas ah tan yaatal la mën ngaa toog jàpp sa njàmboor rek waaye wax dëgg yàlla itam saa su nekk waaye ati at nga topp ci kilifa ak jàmbur di wax ay baat yoo xamee ni baat yu ñaaw la baat yoo xam yu naqaree dégg la bu ko benn taalib mënee muñ itam junni taalibee ngi toog te mënuñu ko muñ looloo dal nag itam Serigne Hamza mu daal di yëkkate kàddam ginnaaw euh, kàddu yu metti yooyu kàddu yu naqar yooyu nga xam ne ci xol lay jàpp di ko wax sa kilifa sa pas-pas sa yaakaar sa lépp loolu mu metti lool ba tax na nag mu dénoncé daat ni saa buñ ko delluwaatee defati yi dangeen ma gis waaye da gis sama jëmm bi sañ am sa defee lool nag ñu baree bari naan wattaqu fitna kon ñooñu dañoo déggut aaya boobu wattaqu fitna la tusibanna alladina zalamu minkum sa nit ñi dañoo xamut ku tooñ waaye ku fayu lañ xam waaye ku topp sëb sëriñ ñaata at jege na fanweer baat bu ñaaw bu ne saa su nekk demal ci internet bi saa su ne ngay dégg ñu am ay wax yu ñaaw yoo xamee ni dañ koy jëmale ci sëñ bi képp koo xam ab taalibe la nag war naa am naqar war naa dénoncer loolu loo tax xam Hamza def ko waaye defaale ko mboolem taalibe yépp mboolem kilifa yépp ci yoonu murit loolu nag pas-pas la loolu nag taxawaay la loolu ab yëg-yëg bu xóot la ba tax xam sa taxawee noonu kon sëriñ Hamza daa eh, def li nga xamee rek war na koo def ndax nit yi itam eh, eh, ndax lépp loo xamee ni ëpp na itam day daal di tuuru ah kon lim def lakinnaha nafsatu masdurin ida jaasha lughaamun ah, min nawahiha rama nit moom bu demee ba nga xamee ni soj na ah, ah, faw mu sëqat faw mu tifli faw mu yàbbi loolu da nga ci nekk waaye daal Eh, eh, nekk na mbir moo xamee ni mbir mu mett la ci xol ba tax sëriñ Hamza daal di dénoncé loolu te loolu itam da koo wax eh, ci sàng ni ma ko waxee te te defaaleel ko mboolem jullit yëpp sëriñ Hamza bi mu defee loolu wa taqu fitna sëriñ Hamza Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Hamza sëriñ Hamza du jaxate sëriñ Hamza waaye Cheikh Salihu Mbacké ñooñu nga xamee ni ci yarub sëriñ bi la jëmmi sëñ bi defar leen defar goo xamee ni waa euh, euh, euh, jëmmi sëñ bi defar leen defar goo xamee ni weesu nañu ak yàqu ci looloo tax sëriñ Hamza képp koo xamee ni mi ngi koy gis muy dox mu am lu mu koy féetale ba fu mu koy jàppe rek su boobaa daa juum wala dafa xamut sëriñ Hamza ku baax sëriñ Hamza ku yaru sëriñ Hamza koo xamee ni mu ngi jóge ci keppaaru Cheikh Abdoul Ahad jóge ci keppar Cheikh Salihu Mbakke kooku baax rek la mën a def kooku yaru rek la mën a def faaye kooku du nitu fitna mukk ba ñuy wax naan ay violence wala xeet yi mel noonu jëmmi yoonu murit musta xam lenn loo xamee ne violence ndax sëñ bi jàngaluñu ko du fii du feneen kon jëmmi sëriñ Hamza ci looloo tax sëriñ Salihu Mbakke wóolu ko daal di koy woo Euh, jox ko xuddaamul xaddiim ngir bëgg mu jàppale ko ci liggéey bi nga xamee ni mooy Touba ci kaaraange gi di ndigal loo xamee ni mi ngi ko jële woon Serigne Saalihu Mbakke sëriñ Hamza nag jëmmal loolu ci euh, mboolem xulafaa yi fi nekk yépp kenn ku nekk joxe ci kàddoom kenn ku nekk rafetlu ko jëmmi xuddaamul xaddiim di dox ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nii nga xam Serigne Amsa amul ndigalu benn kilifa bu maso mooy mbaa benn ndigalu kilifa bu mas a werante lépp lu muy def ci ndigal la koy def su doxee ci ndigal la su waxee ci ndigal la bu toogee itam ci ndigal la amut lenn loo xamee ni dana ko def ci lu dut ndigalu xalifa bi nga xamee ni moo fi nekk jamono Cheikh Saalihu Mbakke ba jamono jii may wax ak yow muy jamono Cheikh Mouhamadul Muntaqa daayira boobu bii nag di xuddaamul xaddiim sëriñ Hamza jëmmal ko itam ci li nga xamee ni mooy aw kayit wu koy firndeel ci doxiinu àdduna ba këyit wow itam yemb na ba daayira bi taxaw nag xam ay àqam xam ay fam xam li nga xamee ni moom lay doxe daayira boo bii nag euh, tudd xuddaamul xaddiim waaye nag mu euh, jóg taxaw ci li nga xamee ni moom la ko Cheikh Saliou Mbacke dénkoon te mooy lan mooy sàmm war may dëkk bi waaye sàmm li nga xamee ni mooy ndonal sëriñ bi te ndonal sëriñ bi mooy alquran mooy xadiis mooy lislaam mooy lépp loo xamee ni mag ñu baax ñi nekkoon na ca loolu la xuddaamul xadiim jóg nag di sàmm ba dara euh, du ko bëtt loolu lépp nag mi ngi amoon ci diggu Cheikh Saalihu Mbakke ba Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñëw gën ko feddliwaat euh, daayira bi nag kon loolu moo ko tax a jóg waaye daayira bi itam am ci nu muy doxee mooy nan uddu ila sabili rabbik bil xikmati ci xam-xam ak sago wal mawida te wajaadilhum billati hiya ahsan ci noonu lay doxe ci xam-xam daayira bi itam euh, ci ñu ko composé di ay xale yoo xamee ni ànd ak seeni mag yu set ay loxo yu am xam-xam yu bëgg Sëriñ Tuuba jox seen lépp Cheikhul Khadim am détermination deux cent pour cent amuñu dara lu ñuy euh, xaar amuñu dara itam lu ñu négg nag waaye lépp nag danañ ko teg ci njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Moustapha daayira bi formé woo ay lijaan yu bëree bari ay commission am na ijtimaiya am na thaqafiya maanaam par exemple social euh, am na culture am na am euh, am na sécurité am na yeneen ak yeneen ci biir daayira bi ba tax na lépp loo xamee ni day sàmmuk sëriñ bi daayira bi jóg na eh, ngir wut ay élément am ngir ñu taxaw foofu fépp ngir loolu mën a wéy daayira bi itam jóg ci biir Touba kon dégg nga bi ma jàng léegi jëmmi sëriñ bi dafa wax ne hmm, digal naa képp ku aju ci man ñu jàng seen pas-pas jàng seen fiq ak yi ci aju yépp loo xam mu kàlla na koo xam yooyu digal naa la ñu jàng ko waaye nag man maa leen di bindal téere yi nga xamee ni moom ngeen koy jàngee nit nag sañ naa wutub dëkkam sañ naa wut programme am teg daani programme bii laa soxla kon nag képp koo xamee ni ñëw na indiwaat beneen programme bu bokkut ak booba te nekk ci dëkkub jàmbur wax dëgg yàlla euh, lool ak tooñ mënu ko weesu te tooñ di ko fekk dëkkub jàmbur fekk sëriñ bi jàmbur saa su ne ngay wax ca moom loolu itam tooñ mënu ko weesu ñun nag Euh, dañoo pratiquer li ñu sëñ bi jàngaloon képp koo xamee ni ab julli la rek téye leen ko seen bopp ba tax nañu sëñu ñoo yëngatu sëñu ñoo def lenn ci ndigal la ñuy wéy kon ci foofu dafay jaadu ñu interpeller état bi ne nañu wax ñi nga xamee ni ñooy kuréelu wahabiya ma pas salaf mais ah ci kuréelu wahabiya ñu téye seen bopp ci li nga xamee ni mooy wax yu ñaaw yi ak gaaru yi nekk ci dëkkub jàmbur yi itam teg ci loolu mën naa ñàkk loolu day indi fitna te fitna nag ma ngay nelaw jëmmi suñ borom rëbb na képp koo xamee ni ma ngi ca ji ma dox ci di ko yee wala xeet yu mel noonu kon nag état bi dafa war a interpeller immédiatement ci nu mu gën a gaawe taxaw taxaw bu wér ngir ay njabootam ñoo fi nekk ah, nit moom man ngaa bañ a bokk ak moom diine waaye nag seen dara Euh, benn jàppante wala benn lenn mën naa bañ a am ndax ay nit yàgg nañoo wuutee ay pas-pas ba na bokk dëkk ay mbokk lañ ay lépp kon loolu moo war a am kon nag bu fekkee dañuy interpeller état bi ngir mu war a taxaw dañoo xam ak njabootam rek la ñëpp ak njabootam la kon dafa war a taxaw taxaw boo xamee ni taxaw bu maandu la taxaw bu wér la li mu war a taxaw mu taxaw ci jëmi Xudaamul Xadim nag bu fekkee ni état bi taxaw ne li mu war a taxaw c'est bu ko taxawul itam maanaam moom jekk na moom pare na amul dara loo xamee ne déranger na ko wala dara euh, lin soxla daal ngir mooy buñ ñu waxal suñ sëriñ bi ñun sëñ Tuubaa lañu am tey suba ginnaaw suba lu dul sëriñ bi soxla wuñ ko nañ ñu bàyyil suñ sëriñ bii te ñoom luñ mën a jàpp nañ ko jàpp waaye ñu bàyyi ak suñ sëriñ Tuubaa mii képp koo xam ne laalal nañu ko ah kooku tooñ nga ñu kon nag état bi dafa war a jóg interpeller foofu balaa lenn di xew ndax itam topp ci di ko tooñ te digguloon kenn muy tooñ nag te lii nag ak tooñ mënu ko weesu dikk ci dëkkub jàmbur di wax sëriñu jàmbur bay dugg ci yeneen ak yeneen kon loolu moo ci nekk daara yi itam li tax daara alxuraan am na ku waxoon ba ni daara alxuraan yëpp recensé nañ ko daara alxuraan dañ koy tëj ah kay am na daara yoo xam mënees na koo tëj ndax mbokk yi dañoo xamul li nekk ci daara yi mbokk yi daara yi dañ fay tere ku fa wax sëriñ Touba daara yi mbokk yi kenn du fa jàng xasida sëriñ Touba mbokk yi daara yi pas-pas yi la ñu dindi waaye daara yi am na yeneen yu ci nekk bu yàggu rek dem nañ benn daara boo xamee ni borom daara ji na nam doon def ak dongo yi ëpp na parce que euh, euh, euh, di ànd ak dongo yi di sàkku dongo yi yooyu terme yooyu la ñuy tëjee daara yi waaye daa daara bu ñu alxuraan kenn du ko tëj bu fekkee ne terme ya mbaa na nga xamee ni noon lañu war a doxe ñu ngi koy doxee loolu mooy bu tëj daara yi waaye fii Touba ah li ko sanc mooy diine alxuraan li ko sanc ah, ah, ah, ah lislaam sunna bu leer nañ sunnatuhul xarra wa inni ahmadu kooku suñ tubaa wax na ko bu yàgg kon buñ dee wax naan pencum tuubaa la ñu taxaw di fa tere ku ni xaala allahu wala xaala rasulu képp koo xame ni wax na ko te ahmadu loo moo ko wax te loolu mu wax dara amu ca fii tuubaa tuubaa dëkku diine la tuubaa dëkku lislaam la waaye nag nit la nekk ci moom lay wax ndax faaqdu shay laa yuutihi nit nag mën naa duural nit ki mën naa sos nit ki man naa wax waaye li nga xamee ni moo am mooy dëkk biir dëkku Cheikh Khadim dëkk bu yaatu la dëkk boo xamee ni dëkk bu yaatub dënn la dëkk boo xam dëkk sunna la képp ku ñëw rek xajal nañ la mën ngaa dëkk ci dëkk bi diine boo mën a yore pas-pas boo mën a yore jëmmi Sëñ Tuubaa xajoo na la ndax moom kat dafa nekk koo xamee ni ñëpp la xajoo moom Cheikh Ahmadou Bamba ndax dafa ñëw doon représenté rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon jëmmi xuddaam nag saa su nekk li ko war mi ngi ciy taxaw kon mbokk yi kon xuddaam amul dara lu muy arrière mbaa dara lu muy bàyyi aha kay saa su nekk day taxaw ci ndigal li nga xamee ni moom la ko sëriñ bi digal te mooy lan sàmm li nga xamee ni mooy wor may dëkk bi waaye defendre dëkk bi ci lépp loo xamee ni bokkut ak pas-pas bokkut ak bëgg-bëgg bokkut ak njàngaleem sëriñ bi ñun am nañ ndigal ci taxaw loolu mbokk yi maa ngi jéggulu ci lépp loo xam ab jaman la ci bëgg ma lu lu baax lu rafet lépp loo xam lépp loo xamee ni ab jaman la ci ñoo ngi koy jéggulu ngir Cheikhul Khadim wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu